borom araama ca saw sumu so ina baa bi ji jaamam ak yëdon commencana xeelu tanaa ñeel nu anaa teekum gur dikka teel saane ci kaawa si bila bi sila nara ci coobak yàlla dem ndax ñun jaam yi moom lañ waala laa ci yàlla fa lay tawakkal nun daxeedu almoom ñu na koy gëm ñu de ba maa la naana ana loog nun allah na tawakkala ba dalal na sunu laa ci yàlla wa xaraa daanaa te cubal na mu pour na ay yoxsunu wala na sibiran na wala yaqal na noo muñ alaama afaytumoona ngeen alaama afaytumoona ci lor seen de lor ngeen ñuy lor ñun danañ ko muñ waala laa ci yàlla fa lay tawakkal na daal almutawakkil na way daal na wa qaala ta wax la ci nañ laa ñu kafaroo wet nañu ci rusul yi ñeel ay yonante seen dana ko jànn comme dana mu génn leen min ardi naa ngeen dukki ci suuf sunu de awla tama duna ci kër ngeen mucc ci milat naa ci diine sunu de faaxee te wayu ilayhim jëm ci ñoom rabbuhum borom seen dan wali kan na walaa yaqal na nu alak ak waa aadi na way tooñ de wala nu kinanakum walaay dana nu dëkkloo leen larba suuf sa de in daa din ca gannaaw seen daalika loo leen dimbal ci man xaafa ñeneen naka ragal na ma maqaam yi taxaw ca kanam sama fa xaafa tam ragal waaye di tëkk sama de wastatoo dañ dimbaliku waa ñoom feebari ak waa ñu wastatoo dañ dimbaliku ñoom julli ñoom yonantee ci yàlla waral seen aw nit de fa xaafa tam perte kullu jabaarin fépp mbër waa kon ami pour aji jàngal ñun waraay aji naka la ca kanam jaanam jaanam way saadee na nanda leen min naa leen ci ndox sabi yi mu dëkk waa njar de suñ maree waaw waa njar jàll ak waaw jóge jëfee sa ndee moom la leen yàlla y naandal te moo gën a tàng sax safara waaw moom la ñu naan jafe jaraan wawo dana mu buuf ko wala yaakaar waaye jege ci mu yusi xoo di war na ko rek dana ko buuf ngir métti mar wa waaye dana ko xaw a ñàkk mën a war na sax waaw ngir wax ga rek ak tàng ga waaye ati dana dikkal so al moo ko safa bi dee su li ma karan tegi sa maa wa sa def moom ci may ay dee waxtu wu ne lu ray nit dal dal ci kawam sa du dee de xaw lu ray aji naka la ca kanam ma saabu mbugal xal yi su mu daa ji dëgër de xasal la sina nelaw ñaaña kafaro rek nañu bara biim ci borom seen amaalum jëf seen karama lim naka góob la sota fop tat na dim ci moom yaa waay ngelaw ci wemin ci mécant ci lim bu daa jëriñ ci seen sarax yi ñuy defar jokk pokkal nga lay ñuy wax nag dara la leen du jëriñ waaw topp yàlla gëm yàlla mooy sart ba da ngay gëm yàlla soo ko sañ a topp yàlla ku gëmul yàlla lépp lu mu topp ci ngi mel ni doom buñ dóor ci kaw aw daj rek waaw ngelaw li ci kaw am de dara nga fa du set ah dana fekk ñu ma kasaboo ca la ñu fàggoon xalaat yéen ci dara daa di ko loolu woo moom dalaalu mu ma dig réer albayna du ko daa ji sori de alam tara ndax gis nga yow Muhammad ana laa naka yàlla ala xam bisina pourcent waaw yasma juróom yaar wala daa suuf juróom yaar bi laq ci dëgg de ñu sa dem soob na mu ci ku mu demee deen yaa tam ci nga xam daa ji rek bu neexoon yàlla léegi mu jële ñu fi indi ñeneen waaw loolu am sikkër ba du seet ñu gis ko comment ça arrive te loolu yaa si suñu aji jafa laay jeera de ba bara soo dañ génn laay gëm ci yàlla jam leen ñu mboole de ba xaala tawax boo faa way toppee les na ñëw ñaani takk ba réew nañu naanakan fu naa nekkoon lu abaaxam di way topp lakum ñaa leen waalantum ndax yéen pour noonu way jañaw yéen naa ci lu naa saabi daay ci mbugalal yàlla bi ñu tey dara a loolu wax ñoom ñu topp ña tawax daana laaw doon de jubal na yàlla a day naa kum toppee bi jubal de tawaxum ajee moo la alee naa ci ñun jëfee naa tiit nanu am sabar naa muñ nanu waal naa jëf ñaa nunu may naa tuwa ba xaala tawax saytaan iblis iblis nag waaw mooy sangam ñooñ safara mooy seen jiit ba ñëpp demee aljanna ñooy dem aljanna dem aljanna ñi dem safara dem safara iblis nag ma nga xam ne kàngu naa rek safara ca ci jaanoo waaw mu taxaw ci kàngu naa ma nga leen di xutba nag lii la wax damaa xutbee ba ateew la mu mbit ma dina laa naka yàlla waadakum dëgg mu leen waadal xaqi dëgg dëgg mu ne leen yàlla digoon na leen te leen fekkee xam na fay xam na ku ma topp dem aljanna ku ma wekk dem safara te yàlla waxoon na dëgg wa waatukum dama dëggal leen man faaxalaftukum sama war deen am na digle ne leen dekki amut fay amut aljaana amut safara amut topp leen ci man rek àddina fi nekk yàlla wax leen dëgg man ma wax leen fen ngeen wàccee yàlla topp ma léegi nag man wat naa leen comment kaana nekku doon lii ñu naan ma aleykum ci yéen min sultaan ñu kattan kat bu leen ma yedd kat porté wu ma leen woon dama leen waxoon rek mu neex leen ngeen topp ma ilaalu fi nekk am daawatukum xoona ma leen sax sa jotum te ngeen woyu leen ci woote sama walaata loo mu ni bu leen yedd ma wala ma yettee noonu sa kumaay bopp seen bu leen ma yedd maam mi leen doon réeral yedd seen seen bopp lu ngeen ma doon toppee ma ana deen maam bi musul xëkk ma xetli seen ci safara am lu maa leen di génne safara mukk rek am suñu dee deen bi musul xeek yéen yooyu génne bu yéen yéen may génne safara ñun ñëpp ci safara la ñu nekk ba faaw ñu nekk man kafartu weddinaa dinaa rek mu ni ak sokkaale seen ak man di ngeen ne man ngeen toppam sax man weddinaa ko lànk naa topp leen ma woon dem leen ma dem ak naxee mbaay seen xaw li dëgg na saalimina naka way tooñ na dama wax na ñoom asaabu mbugal ali boobu lay mu jëkki taalibe moom boobu xila tax xarfe fa àll si na ñaaña amano gëm nañu waamilo tañ jëf saale ati farata ak naa fi ree dana si sa sa biir dana daw min sa rek dana naa rëyam dana xaali dina mbig muñ jooy biir gaa jëlee tool leen di ni rab yi ci ndigal borom seen taxiyatuhum na yow seen si ci aljanna wala amul baat borom la alam tara ndax gisu la kay fa baraba laaw naka defe yàlla masalan lee kalimatan baat tay basan mu daa ji teey yàlla ngi njeebati baat bu teey bi di laa ilaha illa muhammad rasulullah yàlla tudd na ko ay tut ci alquran kalimatan tay batan kalimatan sëtt kalimatan xaq kalimatan imaani kalimatul ixlaasi kalimatul imaani kalimatul ixlaasi kalimatul taqwa yëpp mooy laa ilaaha illa muhammad rasulullah am nga nag melam te jërëjëf naka garab la tey ba ci mbir yaa ngi tey laa ilaaha illa muhammad rasulullah ci mel ni garab ak tàndarma ak toa tattam saa bis ma aji sax na du ci suuf tàndarma dafay toog ci suuf tam bu dëgër ba faro ay bànqaas ci sama aji nag la ci asamaan ay bànqaas ak tàlli jëm asamaan suuf si dana mu joxe wu laa amee ñettam ku lay jëpp jamono bii si rajo aji digale borom ak ku nekk mu meññ buñ tàkkee bu déwénee mu dellu meññaat laa ilaaha illa muhammad rasulullah noonu la mel ci liñ ko wax na ko ci làmmiñam wax na ci xolam jëfal ma ngay yéeg jëm asamaan barke bi di jënd si ci moom mais amal yoolam waxtu wu nekk yonent ne am na ci garab yi garab goo xam ne mi ngi mel ni gëm yàlla Abdullah ibn Umar ne may bëgg a wax ne tàndarma la mu ne ma gis ne maa fi gën di xarel ma ma rus ma noppi yonent ne tàndarma la ba mu génnee nag mu ne bàyyam tuuti ma wax ne tàndarma la Umar ne ko walaay boo ko waxoon mu ma gën a laa dinaa la jiital waaye dëgg laa dana def yàlla lam saala léet na si ñaan ñi aadama boo ñoom yetazakkaru nañu waaru ba gëm de wa masalu kalimatin nelaw baat nag xabisa sumbri aji bon baatab kéefër nag xam nga na melam dafa jaratin naka garab xabisa sumbri aji bon moom mi nga mbëtt la mel de du duutal duutal ne duutal neex na ko in fooke dara ci kaw suuf te mbëtt moom amul ren gi sax dafa duutal ne ci kaw rek boo ko félee sax mu guddeeku naa laa déet ñel ko men xaraarin sax waaye amul ay ren waaw boo félee rek mu mu daanu amul bànqaas amul meññat noonu la baatab kéefër mel moom itam waxut amul bànqaas amul barke sabitullah dana saxal yàlla alla si na ñaaña amano gëm nañu jël xawli ci wax asabiti jëdi aji sax képp ku gëm yàlla yàlla dana ko saxal mu wax baatab tawhid bi moo di la ilaha illa muhammad rasulullah ilaha di dunya ci dawal na ko laaxira ak àlaxira bu demee ci bàmmeelam it malaaka yi dañ ko laaj bu ko malaaka yi laajee loolu lay tontu ne waaw yonent na ne sidina omar moo omar na ngay def def boo xamee ne dee nga ñu sang la waaw sàng la enu la def ñett natt ñetti xasab gas ko ba mu kóor ci dugal la ca waaw suul waaw balaa ñu ñaa noppee balaa ngaa noppee dégg tànk yi ñu la suul si yoon waaw ñaari malaaka daal di tànk yoo xam ne ñu nga juul fukk seen bët yaa nga mel ni jant buy tàmbalee tànk wala jant buy soow ci xonk su ci ne ngëb bolde boo xam ne doomi aadama yëpp suñ koy daje woon mënuñu ko yëngal ñu daal di la jëkkiloo ne la kuy sa borom kuy sa diine kuy sa tegtal kuy sa xibra waaw kuy sa élimaan ana lay def Omar ne bu boobaa su ma tiitee kenn waruma yore de waaye maa ngi lay laaj ndax xel mi maa amee man Omar fii ma ne ma ne ci sama bàmmeel moom laa xamee mu ne ko moom laa xamee mu ne ko bon bul jaaxle dinaa xam lu ma leen di tontu rek bu fekkee ni yàlla bëgg naa waxal tontul jaam bi buñ la ne kuy sa borom nga ne yàllaay sama borom islaamay sama diine kaaba gay sama xibla alquran sama dalil Muhammad ay sama éliman ñu la nelawal xamoon nañ ne loolu ngay wax waaw kooku moom texe na de waaw su fekkee ni waaw xéefar nag su ko malaaka mi ne kuy sa borom mu ne ko yow wala dafa daal di daal ñu dóor du suuf yaay làq noonu bi yàlla bi suuf dox ñu dóoraat man mu ne xaw ma ci dara daal di ba noonu ñuy wax wax waaye fatanaa ko laa dara taw laa taleeta jànguloo xamuloo waaw ñoom dóoree ba dañuy dem safara rek way lii laa dana réeral yàlla ak baali mi ne waaye di nga de weddi kat waaw yàlla dana leen réeral ne duñ xam lu ñuy waaw jub de waaw nekk na ci waaw jëriñu lislaam waaw fi daaw de waaw baatam laa ilaha illa muhammad rasulullah laa ilaha illa juróom ñaar fukk dina ci yoon ak njot la ci safara rek képp ku ko defal sa bopp wala koo ko defal rek mu jot ko ci safara rek ak fukki junne yooyu lixlaas moom it njot la ci safara fukki junne bismillah rahman rahim yooyu mooy fi daaw yi nga xam ne boo ko defalee jaam daal nga wóolu ne mujj na ci safara rek benn xaleel boo xam ne daf daa nekk li solo àlaxira rek war naag jenn fóode fóode ji ne bët bu set muy wax jëfe àlaxira man ma di ko sif ne gëm ma ko woon gëm ma li xale bi wax mu ne jëmmi bés nag xale bi yaayam dee ba yaayam dee bay suul ko rek mu ne xale bay ñëw ak soppe bu mat fëkk di jooy jooy yoo xam ne ku ne xam ne daal waaw métit yëpp na métit ñoo woy sama yaay ngi nii mu ngi ci safara sama yaay ngi nii mu ngi ci safara boo de ñu ne fekk man jàngoon naa juróom-ñaar fukk ak junne laa ilaha illallah pour sama bopp denc ko sama bopp ma daal di wax ci sama xol ne tey laa xam nag xale bi ak dëggoo moom ñàkk a dëggoo maa daal di ne sama diggante sama borom mais fi daaw googu ma defaloon sama bopp may naa ko yaay xale bi mu ne ba sama xaasir ba yàgg rek xale ba daal di xaasare alhamdulilah sama yaay génne nañ ko safara dugal nañ ko aljanna boo de jëlee ma jëlee ci ñaari njëriñ am na li addis yoo wax ne juróom-ñaar fukk ak junne laa ilaha illallah jot la ci safara dëgg la xale bi itam esto yi daa gëmuma ko ma xam ne dëgg la rek rek na mucc ci xale bi waaye fa laa dana def yàlla maa saa mu sabab alam tara ndax gis la ci leen la jëm ci ñaaña santale woot nañu nematulaay cant ak teewal yàlla kufran ak weddi de ñi nga xam ne teewal yàlla yi weddi war weddi lañ ko santale waaw loolu wàcce nañu xaw moom di seen dara doo aari ke dangal kare kii jaran jaanama jaanama ye taw na danañu xarab ko wax ni soogam naa xalaaru sax waaye ba dem jaanama de wa jaanama def nañu laa ñaar yàlla am daal mooy bokkaale de lii di loo gën nañu réeral li ña an sa bili lii walis diinam de bul waxal sama tamoo yóbbulu leen fay na masirakum naka delluwaay seen ila naari jëm na safara de bul waxal de baat yéen ñaalaay jaam sama ala si na ñaañu amono gëm nañu yëqi muñu taxaw salaata julli wayin si xootin sabata bi maa saxanaahum seen wërsëg leen ci ren ci mboolu alaan yetun ak ci lu feeñ min xam liyaat yaa fee jëkk bu jikkat doomul dëkk laa bayaw jëral ndot fii ci moom wala xilaaran du jaageen ak xarit de laa yàlla la si mooy buur bi nga xam ne ala xabit na ma sama wàcce asmaan juróom yaar wala daal suñu juróom yaar de waan su la wàcce na mi ne sama yëpp jaal sama maam ak kaw baax la jëtam gën di ci moom mi ne sama ràcc ne ñett bis am bi dul wërsëg làkkum ñaa leen wa saxara tam tàggat làkkum ñaa leen al fulka daali li tajri gën nañu dox fi baari ci géej wa saxara tàggat na mu làkkum ñaa leen lan xaara yoon yi wa saxara tàggat na mu làkkum ñaa leen tam fa jant wal xamara weer daari day nit ndi yaari way wutonte wa saxara tàggat na mu lakkum ñee leen lay la guddi kenn di ca noppalu wa naara tàggat na mu bëccëg kenn di ca liggéey seen i soxla wa aataakum jox na mu leen min kulli ma saaltumuhu lépp lu ngeen laaj ko ci seen i masla wa in taxam doo wala ndem lim lim ngeen ñaamata laa xewal yàlla daa to suwa attan ci leen ak takamle na lin taan naka féefar te solo mum tooñaa koon la ka far mu weddiwaa koon boromam la de waskul jàngatal it xaala ba wax de ibrahima ibrahima rabbi yow borom sama di ñaan yàlla nga defaatal barab bi si makka addina muy borom ko lëre de yàlla na nga ñaanam ba nga xam ne waa def na makka muy xurum joo xam ne duñ fa tuur duñ fa tuur deret duñ fa tooñ kenn duñ fa rëbb duñ tagg ñoo xam ma bu ko dajee nga ko rey sa baay sax waaw doo ko doo ko laaj dara rek doo ko gaaru rek wajjum nii seet la ma soril ma ko ban yaar doom yi góor sama am naa bu def ci bunu jaamoon la sama xërëm rabbi yow borom sama innahum na naka ñoom xërëm yi xallal na réeral nañu kasiran aji bëri mi ne naa fi ci nit ñi rek ko man tafiaan yi ku topp na ma ci wéetal yàlla tey na naka moom bi ñaaw ji nekk la ma ci ñoom diine sama de ko mën a saan yi ko may na ma tey naka naka yow afoorun aji bëri nga ñaal ko rek na yërëm nga ko de rabbana yow borom sama indi naka man askan bu dëkkaloo na min suriyati ay doom sama di waadin suqur xayri si sahen urufu borom bay mooy makka de enda bay di ko fa nii sa almaaro mi ba di buñu xaraamal rabbana yow borom sama yëkki moom it li ñu taxaw salaata julli ajal yàlla nga def ak da doon ay xol dina naa ko julli ñi taw yi ñuy jàng leen jëm ñoom nañ makka ñu koy dem makka de waaye ñaan la war ko war ko lay ñu sama raat ci mëna wala ko ñu ko ñu ko rabbana yow borom ñu makka de wala ma nga xam naa ma ko la ñu na de ko ma ñu ma ko ñu ko ko de ko ma yaqa na bëgg Allah wa yàlla ñu ko dara ko la ci ko Allah sama ci jaagal ci asma rek alam ba ak jëf yonante ila ñu na yàlla ci yàlla nga xam ne waa da may na mu ñu am na rek ci dañu alal ci bari ànd ak ma sama ismaël ismaël dana mu am juróom ñoom ci dafa juróom ñoom ci ay sa baay sa dana mu am juróom rek ko ñaar na rabbi na borom sama dafa mu do ay ci dëggal ñu ñaan de ak ma ya borom sama rabbi ya borom sama yan yàlla nga dafa mu ma raatu mu ay taxawal ci lii wa mu jëna yàlla nga def ci borom sama ñu taxawal ci lii tam rabbana ya borom sama wa taqabbal yàlla nga nangu sama ay ñaan sama de rabbana ya borom sama ko yàlla nga baal ñu ñaan ma wala wala dara am ñaala yaara am sama de wala bu ñu ak ñaay way dem yow ya xoomu def daga na taxaw am sa bu sa do góor na wala tax da na bu jartu la ala taxal mu aji fagan amma ya rasul ko jott faari bu way gatu de ñu ma wax ko ma tagal ñu salam yow ñu jëm ci bët parce que dañu bokk ci ko ndar taaru ba de mo ko jëm yàlla mo ko ñu ñu do jaar mo ñu ara ci bu ñu do sala la da ay batta tan la jëm asaman rek ñu ci tàng la ko du ko ñu ci ñu jëm ci ñoom tarfu تكلم تقول له اسمي كذا هي فاعتقدون على قلب هاون ويجيب من كل قلب وانصر رضى الله عنه من تدور انا سوي هذا ما كان يعطيهم فسد ربك بين على غاب بقلبه فيقول ترى الذين معنا ولم يؤمنوا ربنا يا ربهم اخرنا كما يسلم الى اجل بجد قريب من اجل تعرف بجد هو تعرف تعرف هذا انا قدمت التفرد رجل ورنا اولم تكونوا نحن كجون اقسمتم اولم تكونوا نحن كجون اقسمتم كجون جون من قبل كجته لما لكم جون يا لهم من سوال ابدي يوم كجون يا يا ابدي انت قال انت هو شعب من يوم على كلام على كلام فقد كنت من ذلك من خاطر الذين تدخوا على النعم سلام وسلم انفسهم بقدا وتبين السبب لكم من لم تنفعوا انا نتبدلهم يمكنهم وضربنا تنبيلا لكم من لم تنفعوا لذلك القران وقد مكروا تكنين මතරම් තහසන් ජීවන දුකන දාන් කරයි. කොහෙන්දලා ආදි නැතලා කියලා මකරුම් තහසන්. ඔයින් කාලම දැනකන ඔයින් කාලම කරන්නේ මකරුම් තහසන් ඉතසල ඉතින් කිසිම අධිකාරියක් දැක මුන්නසහ තහම බුද්ධි දෙවි යන සම්පූර්ණ නුරු. රාජා සදාන බොජර් කළා ආලා මොකද සවාදී නුරු. මේ ආදි බෙන් අත් රාජා හබ්බවලම් රුසුදව ආයෙන දෙන්න යන්න. මින් බදිනා කම්මේ තවන්නව ආයෙන දෙන්න. අද සමහර තප්පු. සල්පර්ණ යාලකන තහබ්බ ඉන්නලාන තයාලා అసలు అది నన్ను సింగరం ధరలో తెలుకు కొంచెం కారణం ధర ప్రజలు చూపుకోమని ఎవరికి పెడతారు జాగ్రత్తలు చేస్తారు ఒకరి ధరకు అరలరం దిగుతూ ఒక మహారాజు తర్వాత అసమాని జాగ్రత్తలు చేసుకున్నారని జాగ్రత్త పక్కన చూస్తే చూపించినక్కడ te boo tam taxaw dañ koy defal safara waaw jullit tam taxaw waaw ñu defal ko ko waaw ñu defal ko ko ay mburu waaw am ndox dañ ñu lekk kanam waaw ba bëgg jële fa tëcc na de ba xara suba dañ jël ñoom di jël yëpp ilaay ko ci yàlla ala ay di kadi kana ala ay ay ñu jaamam de wa tara ñu saanga ya muhammad al bu dina wa ya dina yow lañ ci def dara mu aram dina ci ñu lëkkale ci la tan dañ dañ rek dara dafa ko ko ko tan ko wéral wala leen benn jënd day leen benn nga xanaa bi moom ay mbubb seen suñu xatraanin su ko ci tàmbali de ñoom ñëpp seen ay mbubb dogaram la ko yàlla defee dogaram dafay gaaw a tàkk te yéex a fay moo tax mbubb safara dogaram la ko yàlla def rek ba tax saa dana muuru bu jeexee ma kanam seen naaru safara de yéen ci jot na fay ndax yàlla ku la ñu jot ba kan maa ko fa dem tàggoon dem jiw la dem xayra inna laa naka yàlla pare xisaab bi daal jiw daal la mu bindoo ñëpp dana leen xisaab ci jëm yàlla bëccëg de alxaal bi daal alquran wala xam ab ab dafa la li moo fi ñu nit ñi wala ñu soroo ak nit na waxateef leen ci ak alquran wala yooyu yàlla moom am ngeen nañu xam laaj ci lay weer yi nekk ci alquran am na maa wane kër moom yàlla ilaahum yàlla la ilaahum ñu benn wala yooyu bakara ak ngeen na waaru wala loolu daal waram kan itam leen kër bi jiri al qur makke suñ ko def makka rek kon juróom ñeent la ko sama na juróom ñeent fukk ayatam ci kaw rek ak sa dara ci dañu ko wala ma dafa dëgg loolu mo wala wala ko ñu ko tambu dëgg ci jam ko dëgg wala ko ñu dëgg ñu ko ko إنه على ذلك قدير وما ذلك على الله عزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المختار العظيم ورضي الله تعالى soo xoolee sa la joor doo gis la
bismillahi rahmani rahim sama jëpp ko dum arrahmani kadaaje kawal billah min jadiya arrahmani kadaaje kawal bi dal ta ala kharal alif lam ra alif lam ra allahu a'lamu bi muradihi la ubur a'lamu ma yaqam muradihi ci dina mom kadaaje bi lam ra waaye tum tay la aya ayatul kitab ñooy ay alquran wa quran yi sax alquran yi diine ci daa ji dig aay yi nga wàcc ci yonente bi mooy aay téere yi tudd alquran ñi nga xam ne dafay feeñal bëgg ñu tukke ci baatin de rubama yawaddu bëri ñu ku dana mëdër allah ñu ne ñaaña dafa roo wet ñu ko tënkal yàlla ndaw kaanu donte ne kon nañu muslimina di leen jublu rek ku tënkal yàlla kéefar yëpp danañ rëccu loolu nga def te xelal dafa ñu ñu nekk di ay jullit de léegi nañ ko ci waxtu woo xam ne doo ci jariñ de waaye benn réefal ci àllaaxira du def loolu léegi na xelal te mu nekk di jullit de dañ ko fee tuuti ci ci àllaaxira ba mu gëlëm loo neen loolu la ñuy ñu de wóor na sarwul bañ leen ñoom réefalu Makka yaa ko yoon ñuy lekk waaye tamit tax su ñu yóbbu ci seen àdduna wala ñu ñu tañ saxal leen lama duñ la def ba soo fa yàlla mën a xam dañoo xam na nga leen bàyyi ñoom yéefar dara du seen soxla lu muy seen jiit ak seen sëy wacc leen ñuy lekk ak tànneexu ci seen tànneexu àddina ci guddal ay nit ku ci ne defe ne dafay gudd fan te tere ko gëm yàlla danañ xam suñu gëm jimma danañ xam la xalaat ci ñoom de yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam kees bi nit ñi mooy ay nit ñoo xam ne dañ juddu ci xéewal yaru ci xéewal dara du seen soxla lu mooy xeeti ñam yu bokkut ak xeeti kodaa yu bokkut ay rambaaj yoo xam ne ñooy fasale diggante xarit yi ci sakkul ayib ñi nga xam ne amul ayib ñu teqale ci teqale xarit yi rek ñooñu ñooy ñu ngi ci jaamu yàlla yi yàlla am leen di tëkku nag mais bàyyi leen rek bés bu ñu demee pencam yàlla danañ xam lii seen mbir de mébét moom la saytaane di war a nit bëgg tuub sax mu ne ko da nga dund deeagu de mën ngaa mën ngaa tuub balaa ngaa dee sax xamul kañ lay dee mu ne xam na ñoo xam ne léegi nag yàllaa ko bind ngir yërëme ko mbindee yi de ndax su taxu soo doon léegi kon ñu bari dee nañ bu yàgg de ndax kon ñàkkee ba xamuloo dara su taxu su nag da nga yaakaar ne da nga am ëllëg wala da nga amuloo ren da nga am déwén su taxu su nag yaakaar ñu ci sa xol kon ñu dana ñàkk ñàkk boo xam ne dee rek la cee mën a teg de waaye nag ci ci àddina yàlla bind na melu yërëme sa jaam yi koo ñàkkee yaakaar ne bu ëllëgee nga xam koo ñàkkee ren yaakaar ne bu déwénee nga xam yàgg yàgg da nga xam léegi ñu ñu bari ci la ñuy dundale maa tax yonent ne yàllaa ko bind ngir yërëme sa jaam yi moom ñu dëpp te su taxu sonañ nga dëpp kenn du denc jabar dangaa denc jabar ngir ñëwete am doom su taxu sonañ nga dëpp kenn du tabax kër su taxu sonañ nga dëpp kenn du jëmbat garab su taxu sonañ nga dëpp kenn du ji tool de yooyu yëpp na bëtab yooyu yi nga xam ne moo nekk ci xolab jaam bi moo tax jaam bi di def loolu rek laa waxee de waaye bu taxu bu ñu dëpp dañoon rek kon dootu fàtte dara rek laa waxee de waaw moo tax de am na luñ sant loo xam ne yàllaa ko yërëma jaam yi su duma gëm nag waaw te tax laa fàtte àllaaxira kooku nag mooy li ñaa ngi def wa maa alaknaa ñu ngay xalagu min qaryatin ya nga dëkk laa walaa la rebu ñaan la ko kitaabul ab ci maaloo lu guddi bu ñu xam de yàlla mu daxar ak benn xeer lu may sàkkal la leen dig boo xam ne fa la ñuy xàgg fa la xaratu rek maa tas di ko jiitu fit ñun ummatum xeer ajaraha di cóon de amul xeer luy xalak ko lu jiitu seen ab dig wa maa yastaxiruun waaye bu digg seen dem de waaye benn xeer itam bu tarde bu digal parce que am ci de naka noonu nit ki nag ñu dee mukk lu jiitu desam waaye du dund gannaaw desam mukk rek wa xaale wax nañu ne yéen makka yaa yoon dañuy ay yow waa ji nga xam ne nusila wàcceef na alay ci moom zikra alquran te lam ne ne ñun gëm ñu ko innaka naka yow la maj na ñu ko jinneen nga de mu ne ay yonent yàlla Muhammad jinnee la jàpp law ma taatuna mu sooy rabbi kono bil malaayikati ji malaaka in kunta def na nga mu ne sadak na sooy dëggal ñëre bu fekkee wax nga dëgg lu tere malaaka yi wàcc ànd ak yow wax nañ la Firawna waxoon Firawna waxoon ne inna rasulakum la yursila ilaykum la majnun ñun ne yow mi wax na alquran ci yow la wàcc jinne la jàpp indi muy malaayika yàlla dana leen tontu léegi li mu mujj a wax moom la jëkk a tontu maatana salu wàcc tut al malaayikatu ay malaat te ñun yàlla ñoo koy wattu rek kenn du ko mën a soppali kenn du ci mën a dolli kenn du ci mën a wàññi yonent yi jëkk yëpp suñ ci masa imaal yaay miimal sa bopp yonent yàlla Muhammad suñ ko masa waxe dara rek yàllaay tontu rek noonu dañ ko noonu ci biir loolu mooy nga nekk di ab topp mu ne lay sa bii safaat bi kañ na ko ci réer nga nekk mu ne lay sa bii baraaratul waande yonent moom ba ñu ne jinne ko jàpp yàlla ne déedéet alquran maa ko wàcce ci moom te maa ko wattu kenn du ko mën a soppali suñ ne lu tax indi ci malaaka mu ne malaaka yi suñ wàccee li yàlla mbugal de bu ngeen bëggee nag wax leen te kenn dootu leen mu ne bal wala qad arsalna ñun nga yónni nanu min xable ci dañ jëkkësa ay yonantu ci seen la wali ne jëkkure wala jëkkure de yàlla yónni na ay yonantu yoo xam ne ñoo jëkkoon yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa maa yaatihim waaye mas da dikkal leen ñun rasul ci yónni illa kaanu la rek nekk nañu station ci division waaye ñun la ñu jëlee mooy baaxam yàlla day yonent bu ma sa ñëw ay itam dañ ko daa yéen ci ne waa ak ñu ko fayal ba ba leen yàlla xalaat kon nag ñu ne nag ñu ne woon rek loolu def na yonent bi la ñu moo tax alquran kenn mënu koo soppali kenn mënu cee wàññi kenn mënu cee dolli yooyu njëkk yëpp soppali nañ leen yow soppali nañ saw reet dolli cee wàññi cee Nasara ba léegi xam mu nekk ñu daje soppali ñu jiw alquran moom kenn mënu cee soppali dara lu tax ñoom dañ leen dénkoon seeni téere la dayoon jasaaru maay ñun nag suñu téere yàllaa ko watul boppam ngeen du ko kenn moo tax de ku gën a rëy dara ci xeet yi suy jàng alquran su tëbee wala mu runge waaw wala mu gàtt pare bu tuuti moo koy gàggal ci de nga xam ne kenn mën dafa ci boobu téere rek كذلك كمن أرسل ربك في قليل فريا سكوه أرسل ربك في قليل من سقل ويدي جماعة na yàlla dugale woon weddi ca xoli xéefar yu jëkk ya noonu la dugale itam weddi ca xoli xéefar yu mat yi daa yow dana gëm ci duñ ci yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam duñ gëm mukk waxat xalat waaye dara woon na sunnat la wala baaxal yàlla koy jëkk ya waaye yàlla it baaxam dañu ko def du doon baaxam kay jëkk ya bañ nga def seen yonente daf leen a xalaatoon ñii rek dañ seen yonente waaw suñu moom dañ xalaatu wala fataha donte mu juróom nanu alay ci ñoom baabal bunt dina sama ibu tukki ci asamaan fa sallu te mujj yaa ngi gën a ji fii ci asamaan ndax xaaloo kon dañuy wax ne dina ma sukkirat naka ma dégg na asaar naa ay gàttu bal day naan moom xaw ma nit la ñu ma sooro nañu ñuy jabar rek su fekkoon ni yàlla war na leen kaa dañu gën a mat ak la ñuy xale ñu ngi def la ba dem asamaan booy daañu wax ne ay ak njabar na def yàlla fa mu dugg ba rek waaye ñu ci xam wala xam jaar naa def na moom su sama ay ci asamaan bu rojoon ay mbirum yàlla def naa ay mbirum ci asamaan mooy wàccu waaye ci fii fukki juróom ñaar nga xam ne ci la biddiw yi wàcc leen mooy xam loog sawloog jaw saaw sarataan ak asad ak sumbal ak misaan alxarat ak aw suuf jëloog dalu ak xóor wàcc waaye waaw biddiw yi juróom-ñaar mériix mooy wàcc ci xamdu aqrab ak zora sawru ak misaan ak farik moom it jaw saaw ak sumbala weer wi moom it sarataan jant bi moom it asad ak mustari ak xaws ak xóor ak zuhal ak jadru jat yoon galu rek yooyu ñooy wàcc waaye nga xam ne ci la ci di daw ak weer yi rek parce que naa rafetoon nañ jàngi naa ko dina ñaar way seet ña rek ah ci ci ñamuñu ci nekk waaw parce que naa rafetoon nañ jàngi ñoom biddi ni naasri na ñaar way seet rek te yàlla defar na biddi ba ñu waxee lool waaw bu fekkee ci asamaan mel ni lamp yu tàkk waxe waxafis naa tan wattu ko ñun ko li seetaan su ko ci fépp saytaane raj yi ñu suñu dàq de ci laalu fi nekk man saraka safa ci man sama ak jëbi fa abbaho ta tafal ko saawu biddiw mu diw ñu bu dee aje leer fa abbaho ta tafal ko saawu biddiw mu diw ñu bu dee aji lakk ko mu diw ñu bu dee aji bënn ko mu diw ñu bu dee aji yàqam kanam de wala rasul ma dat naa talal nañ ko waal kay naa tam sama sànni yaa ci moom rawaas yaay bëj de suuf si yàlla ko jënd teg ko ci kaw def bi waral ko war kon nañ yëngatu ñu ngi doon yëpp seen seen dund na moo tax yàlla samp ay doj yoo xam ne ñoo ko tëye rek ba am ba naa tam saxal fii haa ci suuf min kulli shay'in ci lépp la moo so ñu luñ xam de lépp loo xam ne dañuy nattaka peese rek waaw aka kasabu lépp ñu yàlla nga génne ci suuf rek wa jaxanaa bi nanu lakku mu ne leen fi ci suuf maa ngi sa ay dunduwaay de yàlla sàkkal na leen saw bi dund ci meññ bi ak pepp yi nga xam ne mooy waaw génne ci suuf rek bu man dastum ak dund nga dee déen bilaa sa kena ngeen di koy wërsëg loolu ñu leen ak seen jiri ko li nga xam ne ne yéen a leen moom sama ngeen leen a dundal man yàlla maa leen di dundal moo tax su ma leen wërsëgalee meññe di ak capp yi itam wërsëg naa leen waaw ay farluwaay pour seen daaba yi nga xam ne yéen a leen moom de roy ni sayin teet lëf ilaayen danaa dagaa ji nekk la fi nun xasaay no roy magasinam de amul dara nag loo xam ne waa ay amul dara lu mooy ay magasinam nga fa yàlla rek waa magasin yoo xam ne du jeex mukk bu maa ngi rëcc la yoo wàcce suñ koy laaj xadarin dara ci càmm maa doon mbir ñu xam waaye du wàcce wërsëg nag lu ma ci càmm bu ñu xam mooy càmm maslaay jaam yi rek waaw xam na jaam yoo xam ne yàlla xam na ne am mooy seen maslaa daf leen di xamal jox am na yoo xam ne ñàkkay seen maslaa bu ñu xamalee rek dal di daw waaw yàlla fa leen di ñàkkaloo de ci yàlla yi ñu joxe wërsëg yi nag dafa digal ñu gaa yi ñu sànni wërsëg yi gis ñu dem tasaaroo de waaw am na ñoo xam ne seen wërsëg dafa dal ci seen buntu néeg waaw nga xam ne ñoom bu koy rek seen wërsëg fekk si leen de xam na ñoo xam ne seen wërsëg dafa dal sori leen waaw téeméeri kilomètre wala junne kilomètre wala seen wërsëg tasaaroo lii dal ca maa réew laa dal ca maa réew waaw yooyu itam fokk ñu dem ba fekk seen wërsëg yooyu de waaw ñëpp nag yàlla moom moo ko joxe rek waaw sama tanqiir riyaa ay ngelaw la waa kay ñu di war a togg ay niir yàlla bindu ngelaw yi ñuy togg niir yi waaw te ñu feesal ndox su feesal ndox rek fa am sama tan wasal ñoo sama ay dikk jëmi de maan ab taw ak tey naa ko moo tan ñandal leen ko ko maanaam suñu jëm leen di xasi leen di way dàmb la ci ndox ma ma wàcce leen ab taw nag ndax at mu nekk soxla leen taw loolu xam ngeen yéen ay magasin yi ngeen di denc ndox waaw pour tawal seen bopp rek man yàlla maa leen di tawal way naa naka nun la naa nun ñoo ñu dañoo ñu dimbal wala ñu ci sama ngaray danaa noonu alwaari sama ñoo di way def gannaaw waaw jaxan bi dee bi de yàlla mooy dimbal képp ku dund mooy rey képp ku dee ñëpp nag danañ dee moom kenn mu des ci benn ñett rek wala xaraxani naa ñun day xam nañu almustaq ci nuuna way jiitu ñu mën ci yéen de la ko dale ci aadama ba ci wàcce alquran ñu fi yéen ñëpp yàlla xam na leen wala xaraxani naa xam nañu almustaq na way mujj ñu ko dale ci jamono yonent bu baax dina sukki ñëpp yàlla xam na leen de dana leen boole ñoom ñëpp ci benn xat way nga rabaka naka borom sa woo moom yaxturuun nga na mu sanga leen de ñoom ñëpp ñu dañu ci benn xat dina woo naka moom ak ñu ma jox rek na mu suñu dëkkoon alimu ma jox xam ne mooy ñu loo xam ne daaw ma kafa dina ci jekk say ñu jekk ñaa waa ñu indi bindal aadama de wala xad xalax naa ñun day di ñoo lim saana aadama min sa saalim mu tukke ci bal bi kelañ kelañ rek ñun xana ñu tukke ci bal bi ñuul masoon bu dugg aji pateeku rek yàlla ngi bind aadama bu bàyyi koo ci ban ban bu wow ba mel ni xeer yi waaw parce que ay xandeer yi ndaa yooyu nga xam ne soo leen fuddee muy def kelañ kelañ kelañ jaam baat ban bu wooy def noonu waaye ñu ngi jóge ci ban boo xam ne dafa lii xoon waaw jóge ci ban bu tooy bi saq ci yoxo wal jaan na tam bind jaan ci bàyyat jinne te mooy iblis alax naaw bind nan ko min xam ne dëkk bind ak aadama iblis a yàlla jëkkoon a bind mun naa di samuy mu tukki ci safaraw mbooyo de yàlla nga ko bind moom mu bàyyi ko ci takk-takkalal safara takk takk lu amul saxat moom la yàlla dagg rek naka naka li iblis mu nekk di iblis loolu lay tukkaloo kat ne moom safara ci safara la jóge moo gën a aadama parce que jàngataan is xaala ba waxee rabbuka borom sa in malaayikati ñaan malaaka ya ne inni naka man xaaliqun aji bind la ma basaran aadama min salsaal mu tukka ji ban mu ne mu tukka ji ban bu ñuul ma seen bi di ñu tudde te yaa sa woy ko ndam matal na ma bindam wa nafaxtu sama fu wal suuf si moom min roohi raxo sama sama wal ca raxo ngir teral ko ba mu dund fa xaw rab leen kaa ji ngeen di ngeen di weesu jënd wala ngeen ko rek yàlla dafa yebal jibril ne ko demal ci ma ci suuf juróom benn fukki taati suuf yu bokkut ak juróom benn fukki taati ndox nga tooyal ko indil ma ko ma bind ci aadama rek dawal ci moom ngirtu ñaar nañ ma gëm topp ma ma feesal leen aljanna ndax dugal naa aljanna ne danaa ko feesal ñaa danañ ma weddi mooy moom ma feesal leen safara ndax dugal naa ko ne danaa ko feesal rek ba aadam ba jibril ñëwee ba dëkk bi suuf laaj ko mu wax ko li ñuy dox mu ne ko leen sasa naa rek ci yàlla pour ci bikki man luy dem safara rek jibril wàññeeku Mikaayil ñëw mu wax ko loolu mu wàññeeku Israafil ñëw mu wax ko loolu mu wàññeeku malakul mawti ñëw mu wax ko loolu mu ne ko gis naa yàlla sant ma def ko defuma ko de waaw muy jooy mu tibb waaw juróom benn fukki xaaju suuf mooy ko juróom benn fukki xaaju ndox waaw wax ko borom bi nag mu jënd ko nag mooy aadama jënd ko diggante am maan waaw ak baytu maqdis ñeneen fukki at am na ko ci ban bu too xepp ñu nutt ko ñeneen fukki at mu nuux ñeneen fukki at mu wow koŋ nga nag waaw ba mel ni abeeri ndaxa ñu suñu rek ba ñaar fukki booba lañ desa ko dawal raxoonam mu nekk di aadama nekk di ndindët gannaaw bu mu nekkoon di jamaat gerte gi ngeen fukki yooyu ba tey ci dañuy bind nit yoo xam ne yàlla ngi wàcc loxoom ak jigéen bu nekk malaaka moo xam ne moo koy ñaanal doom saa yu ne mu nga naa yàlla yàlla na ñu may ab toqante yàlla yàlla na ñu may ab toqante waaw booloo du mën a am mukk lu ma ñaan ak malaaka maa nangu su malaaka ma ñaanam nangoo rek yàlla daal di rafetal jigéen bi ci bëti jëkkër ne ko ndax dañ ci bind milieu am dañ ci bind milieu mu ne ko danaa ci bind mbindeef wala mu ne ko duma ci bind mbindeef su ñuy bind mbindeef waaw mu ne ko luy wërsëgam kuy taxe lay doonam am kuy taxee di waaw yëpp yàlla wax ko mu soog ko faral ci biiram ndeyam dana nekk ci ndoxam ma nii ñeneen fukki fan soo ko soppeeku nekk aw limb ñeneen fukki fan soo ko soppeeku nekk aw suuf ñeneen fukki fan yett ñeneen fukki ya aadama xamoon ñu soog a def ci moom roxo doomi aadama ñi dana am yett ñeneen fukki ñu soog a dawal ci moom roxo yàtt ñeneen fukki yooyu mooy ñeneen ci weer loolu mooy xikmatu ci jigéen su jëkkatam dee fokk mu indi ñeneen ci weer ak fukki guddi ñeneen ci weer yi waaw ci la ñu xamee ne guddi doomam ci wala doom nekku ci ndax doom saame ñeneen ci weer ci jiitam ndeyam bañ dawal jaroo fokk mu yëngatu ñu xam ne waa biir ba dana fës am na ci nga xam nag ne seen yëngatu du gaaw a fës moo tax ñu teg ci fukki fan waaw pour léemtu moo tax jigéen di téngi ñeneen ci weer ak fukki guddi waaw ngir bañ a yóbbu doom boo xam ne bii góor a ko jub waaw bàyyile ko gënal góor waaw ne moo ko jur mu gën a màgg ci bakkaar yi de ba nga xamee nag ne dawal nañ roxo ci aadama te roxo ga ci ca bakkan ya aadama ci soodi de ne alhamdulilah moo jëkk a wax boobu baat waaw malaaka yi ne ko yarhamukallah looloo tax ñu bind la de iblis nag yàlla ne leen su ma bindee sama mbindeef moomu ba na fi kat fa xamorat leen saa jigéen bi ñu leen si jël ñu ñaan ko fa jëdal ko si jël al malaayikatu malaayika ya kullu ñëpp seen ak noonu def ñu mboole illa iblis la rek iblis rek ñoom ñëpp ñu si jël na ne moom moo fekk bi si jëlal aadama moo ko gën an yàkkoona mu mu nekkat maa saji dina ànd ak way si jël moom bañ naa ànd ak way si jël rek malaaka yëpp rot ci jóot moo tax ci jóot kenn rek la woon ndax yàlla kenn la yées ak yàlla gi lim sàkku ci jaam bi mooy jaam bi ci jóot benn ci jóot moo tax julli benn ci jóot la amoon malaaka yi bañ ci jóotalee aadama ci jóot juróom téeméeri at kenn wàlla bëccëg te ñoom bañ siggee gis ci lii dañu taxaw lank moom ci jóotu ñoom ñoo rot ci jóotal yoonu ñaareel ngi sant yàlla ñi nga xam ne dal yi buñ dalul leen moo tax sujjóot bi ñaar ba tey xaala wax yàlla yaa iblis yow iblis maa la ka moo ana lu tere la la takk na bu nga nekk ci ma sa jigéen ànd ak way sujjóot ñi mooy iblis la daal lu tax ànd la ak mbooloo ñu sujjóotal aadama xaala wax iblis ne lam ak kun nekkuma ci ak kilo di sujjóot di dafa di ñeer aadama xalaat sama bind nga ko muy sol saaju mu tukkee ci ban muy calañ calañ mun xam ne mu tukkee ci ban bu ñuul mas nga bu dee aji soppeeku rek koo xam ne ci ban rek lañ ko bindee bër ci démb rek ci sama kanam kooku du ma ko si jootal de maa seet maa ko gën yàlla waxee na ko ñetti baat maa manaaka an tasjuda is amartuka la ko jëkk a wax keneen nga woon mu ne ko maa manaaka allah takoona maa saajirina keneen nga woon mu ne ko maa manaaka an tasjuda lima xalaqtu bi yadayya ndax benn bakkaar bi ñetti bakkaar yu mag ci nëbbu bañ naa si jootal aadama bañ na ndigalal yàlla bañ naa si jóotal aadama malaaka yëpp si jóot nañ génn na mbooloo bañ naa si jóotal yàlla bañ naa si jóotal aadama te yàlla màggal aadama ba tabax ko loxoom bañ naa màggal lu yàlla màggal lépp nag réew ko ko teg ne moo gën aadama du ko si jóotal xaala wax yàlla ne faxruj génnal min haa tukki aljanna min haa tukki asamaan te naka naka yow rajulun kuñ dàq nga de ba nga xamee ne bañ na di si jootal yàlla te torox lu wut sax ci njub banuut xanaa ci daje yàlla ci réel boppam loolu la ko yàlla xaala gën a ne ko dàq nañ la nag aljana xaraam na ci yow asamaan xaraam na ci yow way na alayka naka war na la laanata am rëbb ilaa yow mi ba jëdd sa tay ba te yaa ngi ànd ak rëbbam yëpp ba ba àdduna tukki sa tënkal yàlla xaala wax iblis rabbi yow borom sama fa ansir ni ñii sama ilaa yow mi ñu fa soona ba ca bés ba def na dekkal yi nii de muy ñaan yàlla nag na ko yàlla dundal te seen kër yàlla bu mu dee dafa bëgg nax yàlla te yàlla ko bind su dundee ba seen kër yàlla deewut kon dootu dee wala su dee bu fekkee hisaab te bu fekkee woon hisaab mën a mucc ci mbugal xaala wax yàlla ne ko innaka naka yow minal munzariina aji nekk nga ci ñoom ñi xëy na daa yow waxtu ba ca ba sa waxtu almaa loolu nga doon xam de yàlla ne ko danaa la dundal te ca jeex teel àddina rek waa dina tukki na nga sola dee xaalam nga wax mu nit bi rabbi yow borom sama ima ak way tan nuñ na ma ci yawal sagi man soñi na ma wallaahi dana ma rafetal lawum ñaal doomu aadama yi si lar ngi suuf wala waxu yàlla hum wallaahi dana ma dooloo leen aj maxe na nit ñu boole de mu daal di gën nag ne yàlla danaa dawal doomu aadama yëpp danaa leen réeral illaahi baadaka ndara jaam sa nuyu ci ñoom almuxlasina ngeen way gëm iblis sax ngay bañ a fen dana gën a bon ci bàkkaar yëpp iblis bu muy bon bon bañ naa fen su ne woon dana réeral jaam yëpp kon mu fen moo tax mu setti jaam yàlla yi nga xam ne ñoom sell nañ ñoom iblis mënatu leen dara xaala wax yàlla ne asaani de siraatun yoon la ale yow war ma di taxawu daal di ji ne baat yi nakay jaam sama tey sa lakkat yëpp ñu yàlla alayhim ci ñoom sultaan kattan man yàlla sama jaami bopp yi soo am ci ñoom benn kattan gis nga leen du mënal illaa lu fi nekk man it tabaaka ka topp na la ñu xaw yi ne ca way dem rek ñu lay mënal kay mooy sa mbooloom bopp mi nga xam ne ñooy yéefar yi way na jaanama naka jaanama la ma du mooy balu waay seen ak nay nan di mu ñu boole de waaye ñoom ñëpp nag safara lañ jëm yaa sa mbooloo iblis a ngoog mooy mu gadee ba nga xamee ne adama ak deyam teew na adama jooy na yàlla yaa ngi may rey te sama noon gi di jaram man dana ma ndokku su ma dee iblis dana kontaan waaw ndax mooy noonam yàlla ñu iblis dañu nit jëfam de boo xamee nag ne iblis malakul mawti faat na raway mbindeef yëpp fa kenn desatu mu ne ko léegi nag iblis sama àppoo nag moom noonu naa ko balaa dee te te ñëpp dee loolu yàlla def na ko yéexe na ko te ñëpp dee mu soog a dee ndax wex tamit dee yi aadama ak mboolem doomi aadama ñu mos yëpp dañ koy digge teg ko moom iblis yàlla ne ko demal nag jëmi iblis malakul mawti ne xam iblis mu daw dugg ci géej ba ca xóot ko rek géej gi gën a xóot fekk malakul mawti ngi taxaw mu daw dem ba fa jant bay sanke fekk malakul mawti ngi taxaw mu daw ba fa jant bay soye fekk malakul mawti ngi taxaw rek nga yuuxu nag yuuxu yoo xam ne mboolem yàlla bind ñu koy dégg ñu de ci ne yow yàlla may ma rek ma dem ci jóotal ba meeram aadama ci meerat ci kanam du ma si ji waaw aadama ma bañu ma si jóotal ba mu dund tey na mun naa si jóotal ba meeram rek waaw yàlla ne dara du jariñ rek yàlla dana nangu ci góor jaam déen abul ci xarxarle naa ko def nag alakul moo si daal di wër malaaka yi ci moom nag ñu daal di ko lon ko càll yi nag jikk tër ko nag ma lay yooxu ñu jikk roxam nga muy yooxu ñàkk jom gën a def na ko moom ci ñi waaw ba yàlla faat ko de yàqtani bee nga xam ne ñëpp ko séddoo woon waaw ñu sëf ko lu ñu day moom kenn rek ba ko yàlla rëbbee nag moom iblis mu ne yàlla sa jaam yëpp naa leen jawal naa leen rafetal ay ma yàlla te defloo leen ko yàlla ne ko waaye ku balu ma baal ko ku tuub ma nangul ko tuub te xarxarlewu la mu ne ko yàlla wax ma silaa soo xam ne moom laay rabbi ni mën a rabbi ni ñi mën gëm ne te yóbbu leen ci sama yoon mu ne ko jox naa la àddina ñu ñëw ci xeefar yi mu ne àddina ngi yàlla jox na ma ko te dama koy jaay ñu ne ko loo koy jaayee mu ne diine rek ku bëgg àdduna waccal diine rek ñoo ma jox loo bëgg defar yi daal di nangu daal di sànni diine daal di jël àdduna ñu ñoom fii jaam yàlla yi sell yi nga xam ne dañoo dëddu àdduna ñoom ñu woon ko gannaaw dana ko bëgguñ de lenn julli bi nga xam ne ne ñoom bëgguñoo bay àdduna bëgguñoo bay àllaaxira ñoom ñu waxanteeg moom de ne ko jox ñu ñu mos suñu mosee suñu jarale ñu jënd suñu jarale ñu bàyyi amu ne jox leen mag tay la de tay la ñu daan la seeni noppal seeni bët ñu tay la ko seeni noppal